mbokku Tawhid TV bisimila yéen ci xibaar yi ñu dikk ak yéen euh, ci li gën a fës bokk na ñu wax rek lu tollook wala sax lu ëpp ñaari junni ci ay tout tànk amuñu këyitu juddi euh, fi nga xamante ne moom mooy ca commune bu Yoff ñenn ñi sax bu examen jotee euh, dañuy jaxle ndax ñàkk googule këyit ñenn ñi dañuy dem ba bàyyi lii di l'école bi moo tax état civil bi di woo parents yi ñu def seen lay kattan ngir ñu daal di bind seen doom. ci gannaaw ba ñu juddoo kese euh, prix yi nga xamante ne nag moom la ñuy jëndee lii di fer bi ñoom ñoo koy imposer ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy industriel yi euh, looloo tax nag ferrailleurs yi daal di mer ba futtu ñu bëgg rek euh, njiitu réew mi daal di ci dugal ay yoxoom xool yan pexe la ñu mën a lal ngir ñu daal di tëggaat boobule secteur nga xamante ne ay milliards lay faral di indi par at ci suñum réew wa ñoom tamit daal nañ dellu siwaat ci wax ana moo tax lii di njëgu ko fer bi daal di euh, yokku euh, ñu wax rek euh, ci prison yi gannaaw bi nga xamante ne dañuy faral di bari loolu prisonniers yi bokk na tamit ci jafe-jafe yi ñu am. mooy rek euh, daal di bokk ci prise en charge médicale bu baax euh, waaye nag naka la ñuy duggaate ci biir société bi ñu daal di amaat liggéey euh, yooyu la nag jafe-jafe ki nga xamante ne moom mooy auteur au livre au fond de prison di Samba Diamanka mu ci indi rek am amal ci taxaw seetlu di ci indi tuuti rek ci ay pexe yu nag réew mi mën a lal di ngeen ko dégg na mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. mbokk yi niñ leen ko waxee woon daanaka lu ëpp ñaari junni ci ay tout tànk amuñu kayitu juddu euh, fële ca commune bu yoof bu ñu sukkandiku euh, ci association jàmmalaay bi yooyu nag kàddu ñoo ko jël euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy état civil bu fa nekk ñoom ñaan ñoom tamit daal di yokku ne beneen jafe-jafe moo ci faral di nekk agent de couloir yi dañuy dee di joxe ay certificat de naissance waaye nag baaxuñu moo tax ñuy ñaax askan wi bañ fay dem nañu dem ba ci biir euh, ci ñi nga xamante ne ñoo yor liggéey bi ñu defal leen ay kayit yu wóor euh, ci ngi rek mu bañ a indil gàllankoor ëllëg tout tànk yi ki nga xamante ne moom mooy nag Mbayang Ali Diène moom daan na lu ni men euh, ba sax muy woo parents yi ne rek dañoo war a def seen kémtulaay kàttan ngir daal di bind seeni doom gannaaw bu ñu juddoo dañ ci àndak tawxiit Sud TV demoon ca état civil bu Yoff reportage. officier d'état civil bi moo ngi artu askan wi ci ñu moytu ñii di agent de couloir yi ndax kayitu juddu yu jaarul yoon yi ñuy defar mën na leen dugal ëllëg ci tuuxi duuna. day am des fois da ngay am ay agent de couloir yoo xam na yow sa doom bu passé un an ëllëg nga ñëw dem nga ñëw si agent état civil mu expliqué ni nga war a def doo ko def da ngay tasee kenn fee mën na la boo ma joxee lii ma defal la ko dem dafa la kayit boo xam ne baaxul bu ëllëgee boo ñëwee gisatoo kooku <laughs> beneen problème la loolu ñu éviter loolu waaw. bu ñu xoolee rek fii ci commune bu yoof am na lim bu toll ci ñett téeméeri gune yu binduwul ci état civil bi waral ñu bëri ci ñoom dañuy mujjee bàyyi jàng. waaw gap moom am na fi ba léegi bien que information bi mu ngi daw atelier yi ñuy dem di sensibiliser les parents gap ba léegi am na parce que bu ñu seetloo ci yenn quartier yi. am na ñoo xamante ne nii bu ñu seen doom juddoo ñu war ko ñëw déclaré dañuy wax amuñu temps dañuy dem géej dañuy dem fii dañuy dem fële gab boobu moom am na fi ba léegi moom vraiment waaw. dëgg la loolu moom problème lay doon parce que da ngay gis xale boo xam ne amul kayit directeur école bi arrangé ko ñu dem ba CM2 allez ñu wutal seen doom kayit xam nga 6 ans xaw ma 7 ans loolu mën nga si wutal sa doom këyit mais yenn parents yi xaw ma nu ma leen di tuddee xaw ma irresponsabilité la xaw ma dañuy dem ba foofu xale bi du mën a am këyit des fois xale bi foofu lay doxee jàngam yàqu fa. mais loolu ba tey tamit am na solution ba léegi ndax jugement mu ngi fi jugement bi du jël temps de du jël sax ay ay un mois ferme mën nañ ci def ci biir kii bi avant xale bi di examen mën nañ leen wutal kayit ñu mën a def seen examen mais des fois da ngay gis ñoo xam ne dañuy obligé bàyyi parce que ku amul temps ci un mois. amoo ko ci un an doo ko mën a am ci six ans dem sept ans. keroog daa ñoom bi ñu defee chiffre ay plus de deux mille élèves deux mille enfants am na lu ñu fa génn ne amuñu kayit ba léegi nga loolu gàpp la ba léegi. waaye nag pexe am na gannaaw ab benn at boo amul kayitu juddu may nañ la nga def ab recours ci audience foraine yi. solution kay ñu ngi jéem a toppatoo audience foraine ñu ngi jéem a toppatoo audience foraine parce que loolu mooy arrange parce que ku mënul déplacé wu ñëw fi doo mën a dem ba tribunal bi ñu ngi jéem a toppatoo audience foraine comme ça xale yooyu mënul amul kayit di jàllale information bi ñu mën a ñëw fii tamit ñu utal leen kayit rek. ci maire yi lañ koy organiser de benn juge ñëw rek ànd ak benn greffier. fekk ñu defal leen benn kayit buy tudde non inscription de naissance muy wane ne xale bi kenn déclaré wu ko parent yi tamit dañuy teew ak seen ay témoins xam ne juge bi fii lay defee audience bi suñu paree ñoom ñoo koy yóbbu suñu defee jugement bi foofu ba pare ñu indil ñu ko ñu mën leen inscrire suñu ay registre de naissance fii ci senegal lu toll ci ay junne junne gune amuñu kayitu juddu waaye teewul ñoo ngi woy di ñaax askan wi jaarale ko ci chef de quartier yi bàjjenu gox yi imam ak association yi nekk fii ci yoof ngir indi saafara ci li ni mel. daanaka secteur bi téeméeri junni ci ay doomu aadama ñoo fay yëngu euh, li nga xamante ne mooy union ferrailleur ak euh, ñoom ñi àndu ci wàllu àddu ci wàllum industriel brocanteur ak artisan yu Sénégal euh, ñoom mer ba futtu la ñu daal di def ndaxte nee nañu ñi nga xamante ne industriel yuy jëndaat fer a recycler yi prix wala njëg yi ñu leen jox dafa tuuti lool te noonee ñu bëgg gouvernement bu Sénégal daal def kamtu lay kattan euh, dox ci jéego wala sax lu ko moy ñu jox leen euh, secteur bi ñoom ñu mën ko yoral seen bopp gérer ko na mu gën a baaxee euh, ndaxte at mu jot daanaka ay milliards moo fay xal di génn waaye nag nee nañu bu fekkee ne Sénégal taxaw nañu bu baax a baax gën a defaraat bile secteur daanaka lépp lu jëm ci wàllum fer ak yeneen yi ci aju boo moyul duñ ko wutiwaat ci bitim réew ñu doon janooka taskatu xibaar yi compte rendu bu ñu sukkandikoo ci kuréel bi ëmb ferrailleurs yi nekk ci biir Sénégal prix bu leen industriel yi di leen imposé baaxul benn yoon moo tax ñuy woo njiitu réew mi Macky Sall ñu xool yan jéego la ñu mën a teg ngir ñu daal di amal ay signature de convention ngir li ni mel bañ a amati. périphérique bi daal fi mu nekk nii daanaka amul solo moom ay diggante cent quatre vingt dix cent soixante quinze cent cinquante la nekk di bëree. dafa am quantité bu am doole ci biir stock bi boo xam ne ñoom mënuñu ko produire loolu dañ koy exporter te industrie bi nga xam ne mënu ko produire dafa daal di taxawaat taxawaayu commerçant léegi daal di jëlaat moom tamit. même produit boobu moo koy jaay ñi nga xamante ne ni ñooy exportateurs yi nekk industriel nekk commerçant yore lépp di jaay ñëpp doole ci loo xamante ne nii teguloo ko ci dara kon am nañu problème parce que li fi nekk nii moom xaw ma ñen ñoo ko mën a jënd mais industrie Sénégal yi ñoom mënuñu ko jënd parce que attanaguñu ko li ñu soxla woon daal mooy nan lañ mën a def ba état bi gën a mën a dimbali ay doomi réewam ba responsabilité liggéey bi moom ñun ñu yoral ko suñu bopp. gannaaw bu ñu leen jëlee fële ca Colobane ci atum 2017 ba léegi ferrailleurs yi amuñu fa ñuy liggéeyee moo tax ñu bëgg nguurug Sénégal daal ci taxaw wutal leen ab site de recasement. xëy na bu ñu taxawalee ay centre yoo xamante ne nii raison bu nekk téye ferraayam union bi dina mën a am ay camion yoo xam ne moom mooy def transport bi lépp di ko indi bépp industrie bu bëgg ferraille nga xam ne dangay def sa commande ñoo xam ñaata nga soxla ñu gàddu la ko indil la ko li nga xamante ne moom la exportateur yi soxla nga xam ne ñoom industrie yi soxla wuñ ko ñu xool naka lañ koy joxe exportateur yi lépp di am ci jàmm ak salaam loolu bokk dinañ am waaye tamit bokk na ci li nga xamante ne ni moo jaadu muy biñ ñu ko defee ba pare waroon nañu teg foo xamante ne nii dinañ mën a continuer def suñu liggéey mais dara amu ci li ci des nag mooy centre yi nga xamante ne ñu ngi ko bëggoon tijji ci région yi maanaam dañu bëggoon organiser secteur bi ba nga xamante ne jafe-jafe bi ci nekk yépp dootul mën a tee ci wàllum yokkute prix lu jëm ci wàllum fer ci wàllum contexte mondial lañ ko teg. waaye nag ferrailleurs yi wax ni rekk ab comité dina daal di taxaw ñu amal ay waxtaan yu yaa ban prix la ñu mën a indi waaye nag ñuy dalal xeli ni Sénégal lépp lu jëm ci wàllum tool cornière wala fer mën na ci am ba doyal bu fekkee ni secteur bi tëggaat nañ ko ba mu baax. sud international moom nag di célébrer fanweeri at gannaaw nag bi nga xam fanweeri atam thème bi nga xamante ne tàmm nañ ko ren ji mooy rek naka la ñuy def euh, ba ci gox-goxaan yi wàllum mbay gën a am doole euh, ca noonee nag si seen gis-gis bilan bi gannaaw atum 2009 euh, ba ñu ñëwee fii ci biir Sénégal bilan bi baax na lool ndaxte bokk na ci ay jéego yu ma bëri yu nga xamante ne def nañ ko lu mel ca Casamance Casamance ak euh, jigéen yi nga xamante ne euh, toll nañu ci téeméer ak juróom ñetti fukk ak itamit lu tollook ci ay junni doomu ak lu tollook junni doomi aadama ci yeneen gox yi fasantiko ci biir réew mi loolu yëpp ngir gën a ful lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ak euh, lii di production waaye tamit yombale leen bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum njaay mi fii ci biir réew mi ak ci bitim réew noonee tamit fas nañu taxaw temm ngir daal jàppale bu baax a baax lii di agropol yu senegal dañ ci ànd ak Louis Etienne Diouf. li nga xamante ne jot lañ ko fa liggéey fii Sénégal nga xamante ne 2009 lañ fi ñëw nga jël su mel ni duwaanu Casamance bi nga xamante ne femmes yu fa nekkoon doon ñu woon mun a jaay su marché marché hôtel bi ne foofu noonu tey ba ñu ne zéro kilogramme lañ fa doon dugal tey dem nañ ba mun a dugal foofu ñaar fukki tonnes ak juróom donc loolu yokkute la mais aussi yokkute bi mooy nga xam ne yeneen TP nga xam ñu ngi nekk si duwaanu Bawol ak feneen ñu leen accompagner tey ñu mun a génnee seen bopp ba gis ne li ñuy am tey mun nañ si fayal seen bopp te tey même am na ñoo xamante ne soo leen tey kaay ma gënal la billet d'avion nga dem mbëkk yi du dem am yoo xam tey soo leen ne ne kaay ma jox la nga dem ma weer bu dem ma fay la cinquante mille cent mille deux cent mille duñ dem parce que la moo ëpp fuuf le salaire boobu nga xam ne moo leen proposé. du xoolee euh, crise post covid 19 lañ jógee am na ñoo xamante ne yaakaaroon ne sax dañ bàyyi agricole mais ñun ñi nga xamante ne dañ ah, doon euh, encadré amuñu woon jafe-jafe bu mag même bu nekkoon ne tëj nañ marché hebdomadaire yi que jaayatuñu fépp même ñoom dañu kon ne jaay parce que loolu ba pare soo xoolee récemment am na interview yoo xam ne lépp lu ñu lekk tey ñoom ñu na tey nag ñu moom lañu lekk moom lañu dundal donc ñu ngi avancé côté boobu baax te yaakaar nañ ne li nga xam jot nañ def dañ ko war a gën a yaatal ko dëgëral pour euh, xam nga am na projet boo bees boo xamante ko ñu mën a lëkkale li ba kii mais ñu mën a béy béy bu sakan aussi bu loolu weesu nag mooy ñu mën a def lu ñu xam ne mise en relation commerciale maanaam lëkkale leen ak entreprise yi nga ñoo nekk su agropole bi pour ñu mën a jaay foofu noonu mais mais aussi du mën a waxoon ci bopp xibaar yi xam ngeen ni nag prison yi tamit euh, fu mu toll nii fees na dell euh, beneen jafe-jafe bi ci euh, tegu rek mooy pour ñu am bu ñu feebaree gu leen di faj mu nekk jafe-jafe waaye tamit bu ñu génnee prison naka lañuy ñuy duggaatee ci société bi mu nekk ay nag laaj wala sax ay jafe-jafe yu nga xamante ne auteur bi di Samba Diamanka di bind ab téere duppee au fond des prisons ci rek andi uh, ci ay pexe yu ñu war a mën a tëral uh, ngir rek uh, jafe-jafe yooyu daal di teggeeku ci ndoddu Sénégal dañuy teewlu ay kàdduwam moo ngi ci doon ànd ak Ndeye Fatou Ka ak Abdoulaye Wade. faut que l'État mu jël ay décision mu jël ay responsabilité am peut-être mu construire beneen yeneen prison quoi parce que prison dafa métti donc boo nekkee ci prison te te. pour dormir même c'est des problèmes ah jafe-jafe dafa bari foofu d'abord il faut y a le surpeuplement Euh, je pense que solution bi mooy l'État mu construire peut-être yeneen prison pour essayer de désengorger un peu les prisons qui sont déjà remplies. Voilà. moom premièrement waxoon naa ci ci problème santé bi tey en ce moment bon boo feebaree boo demee hôpital da ngay sonn da ngay parce que boo amul xale doo faju donc euh, je pense que il faut que l'État mu jël ay responsabilités am pour peut-être euh, euh, construire yeneen hôpitaux. hein, pour euh, euh, faciliter pour le petit peuple, hein, le bas peuple qui n'a pas suffisamment de moyens euh, pour, euh, pour se soigner. je pense qu'il faut que l'État nous jël responsabilité pour construire l'hôpital et nous def quand même pour santé bi mu yomb quoi parce que santé bi bu seere rek affaire bi day métti ci sur le petit peuple quoi. social nag dafa métti parce que man déjà professeur là mais en même temps étudiant là donc euh, justement mon sujet de mémoire porte sur voilà donc euh, réinsertion neexul parce que boo génnee prison parfois da nga am sa jafe-jafe pour euh, euh, pour am travail benn jour sa maa ngi xool benn documentaire benn waaye dafa génn prison daa bëggoon takk benn xale bu jigéen mais yaay bi daa bañoon pourquoi parce que mu ne kii daa def prison te man du jox sama doom ku def prison donc je pense que loolu il faut que l'État mu jël responsabilité tamit peut-être construire ou bien uti ay ONG ou bien créer ay des des des organismes boo xamante ni boo génnee rek mun nga jaar ci ONG yooyu noonu Euh, euh, comment dire encore c'est un remarque autour de question réponse parce que daa am benn xale bu tudd Mangel euh, ak Mangel daa daa daa mu ngi mu ngi mu ngi ci kër gi ak ak baayam donc à chaque fois Mangel su gisee euh, benn affaire bu xamante ni affaire boobu daf daf ko jaaxal wala mu ñëw mu mu laaj ko papam pourquoi par exemple la femme elle porte de habits qui sont indécents pourquoi transhumance politique daa bari maintenant ci landerneau politique yi pourquoi les apprentis yi parfois dañu dañu euh, comment dire encore c'est un peu indiscipliné voilà donc euh, voilà l'enfant ak ak fois à chaque fois mu posé benn question après bàyyam mu tontu ko quoi bon jàngat xanaa di wax euh, état l'état ah parce que le le nom du problème c'est l'état que l'état respecte les autorités politiques et respecte les décisions muy respecte ay décisions et en plus parents yi tamit ñu xoolaat bu baax a baax éducation yi quoi parce que tout dépend de l'éducation boo ñàkkee éducation ci base bi da nga ñàkk lépp. mbokk yi liñ leen andil woon ci xibaar ci Tawhid TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme Tawhid TV la chaîne de l'espoir.